juróomi waxtu yu toftalay simili jot na seen télévision Thiès TV ñu waa ah, dikkal leen ci li gën a fas ci ah, ah, xibaar yi ni nu koy defee bëccëg bu jot bataaxal boobee nga xam ni dinay bàyyee ko foofee ci ministère de la santé ngir gën leen a xamale ak li nga xam ni moo di tolluwaay jàngoro ji di Covid 19 des na ci ñëw ci tuuti gën koo yaatal waaye buñ fa jógee des na tàbbi ah, ci li nga xam ni dëkk boobee di Touba ak diwaanu Mbàkke ñoom li nga xam ni noonu gisee jàngoro ji di Covid 19 taxawaay yi nga xam ni moom lañ ci war a am des na ci ñëw gën koo yaatal ak li nga xam ni mooy waxtaan nga xam ni waa SAEMS kuréel ki nga xam ni moo ëmb ñenn ci jàngalekat amaloon nanu ko ngir di am yoo xam ni fasal nañu ko ci loo xam ni naqari na leen tey faral di am ci l'école yi des na ci ñëw ki nga xam ni mooy soxna soosu di jaariyatu saw étudiant boobu nekk ko jóge woon fii ci Sénégal nekk ko fee ci bitim réew ci réewum France te nga xam ni jamono ji ñu ngi koy seen am ci ak jaaxle loolu ci biir xibaar yi des na ci xuus buñ ca noppee soobu ci xibaar yi bi ci réew benn ponk lay doon ci centre Afrique faram-fàcce gi ci kanam tuuti lay doon Assalamualaikum. Yen ñi nga xam ne yéen a safoo di uh, taataane seen i xibaar seen télévision waa Thiès TV ni ñu ko waxee rek uh, bataaxal bi nga xam ni mooy bàyyeekoo foofee ci ministère de la santé uh, dikk na tey ci talaata ji yemboo ak fukki fan ak ñaar ci weeru janvier tolloo ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci bataaxal yoo xam ni fësal nañ ko di rup jangoro ji ba mu tàmbali ak léegi wax nañu ni junni ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay doomi aadama lañ doon saytu seen yaram téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñoo ci dellu si amee doomi ji juróom juróom fukk ci ñoom amee ko ci wàllu wàllante téeméer ak ñaar amee ko ci kaaw communautaire wàll go xam ne xamuñu ko leen ko wàllu kumu wax nañu téeméer ak ñeen fukk ak juróom ci ay doomi aadama yu nekkoon ci l'hôpital yi féex nañu génn war dem ci seen njaboot fanweer ak ñaar ñu nga toll ci war jàngoro ji tolluwaay ju xaw a doy war ba ñu leen téendi di saytu seen wàllu wér-gu-yaram fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu teewlu communiqué bi le recours précoce aux soins Assalamualaikum, beaucoup Sénégal Tay bésu talata fukki fan ak ñaar ci wéru janvier 2021. ministère buñu ñu dënk wérgu yaram askan wi jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci junni ak juroom benn fukk ak ñaar test yu ñu def téeméer ak juroom fukk ak ñaar ñoo ci positif. maanaam juróom fukk la am yi naan cas contact mooy ñi jotoon di jaxasoo ak ñi amoon doomu jàngoro gi amul benn ka importé maanaam benn cas jotuñu ko bu jógee ci bitim réew téeméer ak ñaar dañu jot a am comme transmission communautaire maanaam ñu jot jàngoro gi te xamuñu fuñ ko jëlee. ci loolu lim bi nii la tëdde fukk ak juróom la ñu jot a nemmeeku ci diwaanu Kaolack juróom-ñett ci Mariste juróom-benn ca Dakar Plateau Richard Toll ak Ndar ñeent ca mbuur Mermoz ak tuuba ñett ca Dagana Guinguinéo ak tàmba ñaar ca Diourbel Kafring, Liberté 4 Matam Mbao Ngor Parcel Aseni, Sangalkam ak Ben, benn Amitié 3 cité Cheikh Amar cité Djilimbay, Dara, Djamnyadjo, Djofior, Goudiri Guédiawaye Joal Canel, Liberté 3 Liberté 6 Linguère Mamel Médina ndoofaan Ñaari Tali Wakam Sacré-Cœur Sakal Scat Urbam ak Sokone téeméer ak ñeent fukk ak juróomi malade ci ñi ñu hospitalisé wér nañu bésu tey fanweer ak ñaar malade ñoo ngi réanimation fukk ak benn malade ñàkk nañ seen bakkan bési démb altine fukki fan ak benn ci weeru janvier 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak benn ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom cas positif ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak juróom téeméer ak ñaar wér nañu ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ñàkk ci seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar si suñu hôpital minister bi ñu dënk wér yaram askan bi mu ngi ñaax ñi sàmmoonte ak digle waa kër docteur liñ ci mën a lim mooy raxasu bi nañu farlu di raxasu ak ndox ak saabu wala ñuy utiliser gel hydroalcoolique nañu continuer di tàkk suñu masque saa su ne saa ñu génnee suñu kër ba nu ñuy dellusee nañoo tàkk suñu masque nañu continuer Euh, mu nekkoon bataaxal bi nga xam ni mooy bàyyeekoo ci euh, ministère de la santé ba tey dañuy des ci ci wàllu ko jàngoro ji ndax demoon nañu foofee ca diwaanu Touba ak Mbàkke euh, tolluwaay jàngoro ji mesures yi barrières yi nga xam ni jël nañ ko ci sàkku ci askan wi ñu di ko dëkki am ñenn ci askan wi yoo xam ni seen i gis-gis waroon na ca foofoo ca dëkk ba demoon nañ fa taataan seen i xalaat ñu teewlu. kaay ni mu bëri ah, xanaa ñu jéem ko gérer rek kaay de moom bëri na de te corona bi lu wér la lu am la de moom waaw man de naa ci lu ma leer ne moom lu am la nañ ànd ak président ci li wax rek mooy moom comme comme ñun li mu def ñun la nañ ci jéem a ak moom rek parce que corona bi moom am na moom wér na moom waaw amatu ba ci lu ma ciy sikki sàkk kay. Ah, bari na torop moom ndax li ñu lim ci cas yi bari na torop dëgg yàlla am liñ yi waaye fagaru rek fagaru te fonk li ñuy tamit fonk digle yi bari ah, te rek si bopp waaw loolu rek laa ci gis. waaw deuxième vague bi waaw comme liñ ci wax noonu am na doole. am na kaay muy commencé bariwaat am na yeneen yu fi doon ñëw tamit te xaaruñu ko mais daal wax dëgg yàlla mënoon nañ ko jëlee beneen façon boo xam ne moom du façon bi ñu ko defee nii quoi. parce que ni ko defaatee dafa bett ñu bëri te muy commencé yàqaat lu bëri ndax dèjà rek économie bi jugaatoon na ñu euh, nit ñi ñu ngi commencé waat di retrouver seen travail normal mais ak ni ma ko gisee nii moom dëgg yàlla moom nit ñi ñu ngi bàyyiwaat seen loxo. te ak fi ñu jëm moom ndax xam naa dégg naa tey war naa wax moom. te gëm naa ne bu waxee tamit li ba yeneen yu bëri bëri bëri dina yàquwaat donc ñu li li ci gën daal mooy ñu jéem a def li mu wax rek xam nga respecter mesure barrière yi takk masque yooyu noonu xam naa mooñ ciy dimbale bu ñu defee noonu daal euh, dina tane tuuti. ñun dañoo sonn ci Covid 19 ak Macky sàll ñun sonn nañ de dañoo sonn mën suma ma sañoon sax ci waxaat parce que doy na dañoo sonn dañoo énervé fu mu toll nii. deuxième bi amul barki sëñ Sall amul. ak li fi passé yëpp ni Magal Touba gi passé gàmmu passé lépp passé amu deuxième vague ba moment bi ñaan ñu ay deuxième vague ñun nekkul foofu léegi ñu ngi feneen gëmmuñ sax ay coronavirus bi mu doon nii foofu lañ toll. ah man loolu li ma ko gisee mooy que ni état bi dafa bëgg a sonal population bi rek mais corona bi moom fii ak jeexut Europe du jeex fi parce que demoon nañ ba am benn cas zéro décès léegi fii ak euh, vol yaa ngi dem di ñëw chaque jour cas yi day dugg fii moom luñ mën a takk max raxasoo zel respecté mesure barrière yëpp du tee mu ñëw fi parce que fii ak aéroport bi tëjut kaa yi day ñëw parce que. donc euh, mu nekkoon euh, reportage bu ñu amaloon foofee ca diwaanu Mbàkke ak tuba gis-gis yu woro ci wàllu ka tolluwaayu jàngoro ji noonu la ñuy def daal di dem uh, ci genn kuréel gu ñuy wax AMS nga xam ni moo ëmb ñenn ci mbootaayu jàngalekat uh, doon fësal seeni kàddu di uh, nakkarlu li nga xam ni am ci l'école yi ndax li nga xam ni wax nañ ko ci tolluwaayu jangoro ji ñoom gis nañ ni amul benn matukaay bo xam ni jël nañu ko ba tax élèves yi daal di koy respecté foofu ca l'école yi ya, rawatina takku masque bi nga xam ni moom la ak respecté yenn distanciation yi ak na nak li nga xam ni gel bi ñu war a raxasoo loolu lépp na fa waaye bi leen te te doy di eh, mbir mu bes bo xamni ne na ko tuddé phénomène te xew ci école yi di flash école yi di koy jël mu nek mbir mo xamni mu doy war la ay xétu ñaawteef ñuko ci faral di fessel rawatina ci kat yi eh, ñu tewlu ma ngi tudd monsieur Sirakhate Gueye secrétaire général régional donc du SAEMS à euh tay point de presse bi lu ko waral euh dafa am ñaari point yo xamni mom ni lañ bëgg waxtani waxtaanee bu ci ñëk moy lépp lo xamné ni mi ngi xew ci école yi waxtu wi yi nga xamné mom lañu tollu ñu wax ko les points d'actualité ñaarel bi ñu nekk ci li nga xamné moy protocole d'accord bi nga xamné mom lañu la signé woon ak le gouvernement du Sénégal le 30 avril 2018 euh, bu ñu tambalé ci question d'actualité yi moy li xam ne moo xew tay ji ci école c'est ñepp diko ko ñaawlu bi ci ñëk moy tay

teg ko ne moom la ñu war a def pour que école mën a tijjiwaat boo ci jëlee ci protocole sanitaire bi li ci njëkk mooy le port donc de masque gis nañ ni boo duggee ci école yi port masque boobu daanaka existé tout ñaareel mbir mi mooy les flasques booy dugg ci école mooy température bi dañ jëlee nit ñi même bu dee existé na nit école yi bu ñu nekkee mille élèves nga am benn wala ñaan loolu xam nga ne doyul ñetteel bi mooy gel yi yi nga xam ne mooy permettre sax bu dee virus bi sax mi ci yow mu mën a bañ a épandre

loolu yëpp nag mu nekk loo xam ne ni ay tiitaanga la boo xam ne suñu organisation syndicale bépp jàngalekat am na ko tey li jëm ci mbàllum jàngale mi moo taxoon nag ñuy alerter le ministre de l'éducation nationale di alerter le gouvernement du Sénégal à ce que ñuy apporter des solutions à ces genres de situation pour ñu bañ école mi euh, mu nekkoon euh, waa SAEMS amaloon ak euh, toogaanu ak taskatu xibaar yi doon wax li nga xam ni moom la ñuy dund ci l'école jamono ji dañuy ñëw nag ci soxna si nga xam ni daanaka moo coow li moo lëmbee réew mi wala bokk moo lëmbee àdduna bi ci jamono ji di jaari saw nekk doomu réew Sénégal nekk foofee ca biti réew ca réewum France doon fa sàkku xam-xam étudiante la waaye nag boobu ba tey daanaka ab diir a ngi nii gisuñu ko xamuñu ci la ñu nekk am na sax nak ñu jot a amus yaakaar ndax nee nañu xel mën na naa dala ni ginnaaw seet nañu ko ci l'hôpital yi gisuñu fa jëmmam seet nañ ko it ci yenn béréb yi nga xam ne ci prison yi te nekku fa xëy na euh, mu ngi ci euh, dëkk bi kon jàmm ma nga ca moom am na sax yaakaar goo xam ne juddoo na ca ñu teewlu. ci tënk kii di jaari Sow ñoo ngi wéy di ko seet l'enquêteur yi nag. jot nañu xam fan nañ ko mujjee gis ndax benn xam ne na ni romb na ko ci lion bi fa l'enquêteur yi demee daanaka piste boobu joxewul dara leneen li ci am tamit mooy moom jaari Sow Toulouse lañ gëj a amee moom nouvelle ba ni muy badge ci lundi 4 janvier bi police nag def na descente ci néegu jaari Sow lañ fa nemmeeku mooy effet de toilette ak yi muy yittewoo ngir nekkinam yépp daf ko yóbbaale

xibaari bi ci réew yi ni ñu leen ko waxee benn ponk lay doon foofee ci réewum centrafrique coow li nga xam ni amoon na fa di ab xeex boo xam ni ñenn ci ay defkatu ñaawteef ñu yor seen i ngànnaay duggoon ca dëkk ba rek di soobu foofu ci wàllu xeex waaye nag di jàmmarlu ak ñi nga xam ni ñoo di soldaar yi réew ma ci njàppandalu ñi nga xam ni ñoo jóge ci yeneen réew it ñoom di leen jàppale di seen i allié xeex ba nag li mu jur daanaka ay jafe-jafe rek la ginnaaw coono ak fitna gi nga xam ni moom la askan wi yeewoo foofee ci centre Afrique di dundee waaye nag rawatina nag li ci gën a tee doy waar mooy bépp xeetu marchandise boo xam ni daan nañu ko jëfandikoo foofee ca capital ba daanaka yegseetul ndax ciow li bamu amé ba légui ñu bari danoo daldi di daldi teju di dematul auto dikkatul bi ci gëna a tey doy waar mooy la fa desoon ko su ñew ci walu ñu jëfandikoo doon ko jaay ci marché ñëk ya ma ngay yok bu wesso yok ga amna yo xamné sax tàmbali na noo manqué te nag ña ngay amuk jaxlé ndax xex bi bu yàggee danaka dootu ñu gëssatu lu ñu dundé fofé ci capitale centre afrique li mo gëron fasti xibaari bi ci réew yem bok fi ñu ndar keppee xibaari di jaajëfal bu wa baaxa baax mbay papp ji ci yombal gi Lamine ci wàllu régie bi Seydi ci wàllu caméra yi di leen joxaat daje incha allah bi suba ci yeneen xibaar ci kanam tuuti ñu bàyyi leen ngeen wéyandi ak li gën fas fës ci programme mu Thiès TV jaa ngeen jëf.